album audiovisuel dañuy wuutu jullit yépp jaale suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dogal na seeni fan yam te fekk ñu sori seeni réew lool yàlla na leen yàlla yërëm te def ci seeni njaboot euh, kuutaay ju ëpp ju raw dañ fa daan taxawe te yàlla yërëm leen te jéggal leen te xam ne euh, jom rekk moo leen yëkkati woon wuti moo leen yëkkati woon euh, ba yàlla waxee nag ne maata tadri nafsun bi ay ardin tamut booba la wax farankalaayu woon mooy ku xam bara sàngam fa lay faatoo du fa ma sasi tànkam lu dul xanaa dogal baa agsi rek waaye ku ko xam xam bis ba xam waxtu wa du fa mas a tànkam du fa jéem dem ba faw waaye ay waxam du randu moom subhaanahu wa taala daf ko dendale ak yett ba yent yëf daf na yàlla moo xam kañ la sadi di taxaw moo xam kañ lay taw loolu xam-xam dem na ba àgg ci ñu naan bu ngoonee dana taw mu taw waaye xam-xam la ko ci yàlla tudde ak xam dëkk mooy taw boobu lu muy ñoral ak lu mu dul ñoral ñen ñoo cay lekk faatu ak ñen ñoo cay lekk wér fekk wéré di woon nañ yàlla yit teg na ci ni moo xam li nekk ci biirub soxna si tollu diggante xam-xam bu demee ba àgg ci góor la jigéen la wala ñaar la ñett la yit yàlla moo téyewaat ci loxoom gannaaw ñun téye loxo lañ ci xam kii ànd ak soxna si kuy gudd fan la wala kuy gàtt fan la wala kuy dem aljana bu ëllëgee la wala kuy dem safaan ba waaye moo xamit ëllëg ci yëngutukat bi lan la nar a am ëllëg donte tey gis na ne tey bis bu baax la ci moom waaye ba mu ko tëjee lu nit wër wër wër wër wër lu nit xam-xam-xam foofu rek lay mujj muy faatu mooy fi mu waxee ne suratu luqman inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu lgaytha wa yaalamu ma fi l arham wa ma tadri nafsun maada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut tëje ko nag inna allaha alimun xabir yàlla rek xam te moo dañ kumpa ci li ci kanam lii waykat waxoon nag moo ca nekk nee na booba jamonoy xare moo yaatu woon moo tax ku daan léeb walla muy joxe misaal léebu day jël ci li nit ñi doon dund di leen ca misaal dafa wax ne ku jaasi reyut it leneen dana ko rey dee bari na ay sabab waaye dee dee rekk la man la yamut bi sayfi maata bi gayrihi taaddadat al asbaabu wal mawtu waaxidu baaraam nag joxañ na ku nekk naan ndax la mu waroon a taxawe taxawe na ko ba suñ bokk yooyu di fa des waaye bokk yi ku yebu wéeruwaat ci yàlla rek te doyloo ko te yaakaar ko te di ko ñaan taxaw goo xam ne ci moom lay koo ndax bokk yi koo xam ne fu mu jëm dañu koy wattu kooku munta wattu kenn ndax telu ko koo xam ne fu mu jëm ñu ngi ko wër di ko wattu yaakaar ne tey jii mën naa am lu jóge feneen ñëw ci moom kooku bokk yi tëlu ko te bala nga naan wàcc leen ko da ngay naan wàcc leen ma ba noppi da nga naan wàcc leen ma ba ñu wàcc leen nga soog naan wàcc leen kële kon kuyee bu fab lépp teg ko ci loxo suñu borom rek te fu way mën a nekk yàlla ne ko fa yàlla fekk ak kaaraangeem ndax moom rek moo mën a aar yi ñi ñuy garde di leen wattu bis bu set subhanahu wa taala yabal ndawam mu yoxoosu leen ñaata nit lañ génnee ca seen taax ya? te fek kuy doxook sa tànk bala nga fa dugg lu leer ngay wax soklen leen romb jàll waaye la yàlla waxoon du dañ ay aynama takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada su digg ba agsee ay gàrd yu jege ak yu sori ñoo ci yam dañuy ñëw xool ko rek ku nekk yëngal ay mbagg ñu xoolante fekk boroom moo ko jël loolu lañ koy bàyyi xel kon koo xam ne fu mu toll ñu ngi koy sàmm di ragal lu koy lu koy laal kooku talut kenn moom boppam lay taal kon bu mu tax ña fa des seenum xel di rëng-rëng wala ñu joxoñ kenn nañ nañ ñaan yàlla rek xam na yàlla moo ko moo joxe woon moo jëlaat doonte waris naa laaj kenn ku nekk la mu war a def waaye bokk yi suñ ko tënkee euh, kaw neex na lool niir na lu neex waaye bu neexoon dëgg dëgg dëgg ñene si kaw duñu wàcc ci suuf di fortaatu ndax lu ñu am ci suuf lañu ko jële moo tax ñi nga xam ne yàlla dem yàlla dogal na demaguñ te ñoo jéem a toog rek te xaar yàlla te xam ne adduna léeg-léeg fu bare day tàngandoo cin luy bax la léeg-léeg ci luy xas bay bax moom ku ne ci biir yàlla rek ku mën a musal waaye fa mu yaakaar ne foofa sedd boo fa demee fekk mën naa gën a tàng su ko defee ña fa dese ku si néew it nañ fas jom te def ci seen xel wàññeeku nag dellu si waat ndax kat bokk yi lu metti metti nit bu fi bàyyi ko ña ko war a tiim tiim ko lu ci am solo la rawatina nañu denc ko ci suuf sam juddoo yaroo fa màgge fa doon fa jaamoo yàlla donte jaamu yàlla amul frontière fi ñu ko du defe waaye teewul nag li gën a dal xelum nit ñi moom mooy kenn ku ci nekk faatu ci kanam ñi ko wa ñi ko war a tiim waajale ko nañ ko war a waajale yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu yàlla na soreel lool nag ñi nga xam ne fekk nañ tuuti jamono génn kilifa mës naa wax fii fekk boobu day def bu nawet di jub dëkk yu mag yi dañuy seet ña fa ñëw te amuñu fa liggéey yu wóor ku ñu xool carte d'identité fekk ñi bind ci baykat la ñu daal di koy téye dugal ko ci wata yóbbu ko ba ca région ba mu dëkk ñu wàcce ko fa daana am moo tax kilifa googu waxoon ne te ngeen a bàyyi sowu bi ak waa sowu bi te ñëw ci penku bi ba yàgg mu xam ne ñëpp mënuñoo dëkk maa si jëm penku am nañu dëkk ci bëj gànnaar ak bëj salum mu ne nañ liggéey fii fii ja mooy fenn fu nekk waaye dëkk fa na fa jéem a taxawal dara rek ñot ñote fa yàlla mën na ko faa fekk ndax yàlla mooy fu waay nekk am fa dara yàlla ko jox foofu kon nañ bàyyi penk sowu bi te ñëw ci penk bi jot na sëkk ndax sowu ba gën naa yaatu lekk am na fu ñuy tudd fi fi tuddoon sow fi tuddoon sowu moom weesu wutoon Ndakaaru waaye jamono dox na bañ fi ñu tuddee pe sowu mooy Occident rek fi ñu ne fa la xéewale gën a bare te moo ne foofa bokk yi mbooloo mu bare nga fay jóge di ñëw di sanc si fii nañ dal ak jàmm te ñañ fa desee ku si néew nag ñu may leen fa jàmm njaal moomu nag day làmbaale suñu yeneen mbokk yoo xam ne it ci biir réew mi la leen dale duggoon ci fafal naaw muy naaw ba yàgg mu far wàcc ci lu dul coowareem ña ko yoroon yàlla na yàlla def xolum muñ ci bokk yi bi ci dolli yàlla na yàlla defal dégg ak topp te dolli yërmandeem ci suñ bokk yooyu faatu am na ci ñu faatoo ci réew yu ñu jege fuu rek moo ne kooku faatoo ci réew mu ñu jege fuu dey moom itam ci tur yi gone yor yor dafa daje wala dañ ko waajal loolu ñi ci mën a wax ñu dégg seen kàddu mu mën a dindi mën a def war nañ cee jël bu dee loxo koy jël ñu jël loxo bu diis su dee kàddu moo koy jël ñu jël kàddu gu diis te kaddu gu dis nak munta wessu kaddu suñu borom man na wër wër waye munu ko romb nak la ci dolliku yit moy <clears throat> bokk yi fofu ñuy dem euh, des nga tuddu fu melne italie wala espagne fess na fan yi wala euh gën nañu bari de ci suñu mbokk julit bokuy tay amna am suñu bokku jullit yo xam bu la xif bëggoon a ray fi tay ba nga dem ndax ndax ma sour ndax pas-pas len bolé soy duggu ñu ne coppet sa passeport du to ko gisat ba ngay gënal rew do fa am jamm do fa am salam. teewul nik yalla bol nañu lim ñu bolé waye ñoom war nañu xalat seen bop ba fu ab jullit jaxlé mëna dem jëm ci ñoom ndax ño xamna yor nañ ko mu ne gañ gàññaaral yalla ko fa def la fa ne yalla ko fa def fu dara nek yalla ko fa def war nañoo ges seen mbokku jullit yi ba seenum xel dal ci ñoom ba bu jaax la amatee nit mën faa jëm waaye bokk yi foofu ñëw ñu wàññi ko ku wàññi moom mënut a doon ku tuuti waaye lim ba fa nekk suñ la ko waxoon ñuy muñ ci ñoom lu bari danga naan loolu mënta am nit dana fa def loo xam ne ñemewu ko def fii ci réew mi dëkk ñu teg ca tànk waaye nag su dig bi agsee agsi na rek. waaye ña fa des ñëpp yàlla leen yàlla musal te musal réew yooyu itam nag ndax ku dugg ci gaal da dangay da ñaan yàlla gaal ga mucc te ñii nga xam ne it ñoo mën a wax ak ñoom ñu dégg leen it war na ñuy wax nag waaye bokk yi bu ñu fàttali foofu laay jaaxale rek dama xamut boo xam bakkanu nit ku ñuul moom daa tolloo wut ak yeneen bakkan yàlla bind wala dee te ñi ay nit yu dox di wax bokk yi am na ñu fi. deewon ñoo nga dañoo dee ndax ñoom ñoo ña doon ñooy doon ñaawal yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam di ko ko kuli laanatullahi alayhim ajmain ba ñu leen fi fii ci Afrique am na ay kilifa yu réew yu jël alal ci alali africain yi dem jaale ji leen ñi ngi xool nag ba xam ni ñuy def ak bokk yi faatu yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril amin Hello, audio audiovisual.